fi nga dëkk alaaji baara sëñ Cheikh mi la fa daan àndal di fa dem jaxaaw alaaji baara miin na ko lool ak sëñ Cheikh mi Mbàkke fàddilu waaye sa maam moo jëloon manto ba rek ne dama koy tayle ngir sëriñ Touba kon yow war ngaa mën a ñëw ci njaboot sëñ Touba vous avez la parole monsieur le ministre alaaji Arouna Komando Fène jërëjëf ahousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma allahuma salli ala seydina muhammadin wasalim jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba sëñ Cheikh Oumy falilu le président de la République son excellence monsieur Macky Sall moo ma yabal fii ngir ma teewal ko sant la feddali kóllëre ak yow jottali la li nga xam ne moom la mébét ci réew mi nga ñaanal ko maa ngi jël nuyoom ak nuyu gouvernement bu senegal di ko teg ci loxo suñu sang bi ñu fekk muy sëñ falilu Mourtada mu joxal ñu ko sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér ak képp koo xam ne mbàkke mbàkke nga te nga teewe bis bi président de la république son excellence makisal Sall mu lay feddali kóllëreem ci xarit boo xam ne am ngeen ko ay at boobu nekkagul président de la république mu gis ci yow nga am vision vision weesuwul Sénégal bii nga xam ne soo jëlee téeméeri sénégalais ak sénégalaises juróom fukk ak juróom yi ay tuuti tànk lañu ñu ci bëri amuñu chance dem école ñi ngi ci mbedd mi yàlla may la xareñ ak vision nga mun leen récupérer ba nga xam ne ñu bëri ci ñoom dañu naroon di taxawaalu di def lu bon nga xërtal leen ci islaam nee na loolu ki ci war njëkk mooy gouvernement waaye ndokk bañ la ci fekkee président mu ngi lay gërëm mu ngi lay sant mu ngi feddali kóllëre ak yow te di la xamal ne lépp loo xam ne laal nga ko jàpp nga ko wala xemmem nga ko di nga ko bokk ak moom jërëjëf waaye loolu bettuñu ci yow ndax ku xam sëñ Fallou balaa ngeen xam Fallou man li ñu wax léegi Màkka laa jóge dem naa Màkka ba ñëw c'est ma première fois nag yóbbu naa ay nit yu bari Màkka waaye dama ne woon duma dem màkk ndax Touba doyoon na ma xam naa yàlla woo ma ndax nee nañu ku dem màkka invité de jëng ma dem màkka wax dëgg yàlla gisuma fa dara loo xam ne yokk na suma ngëm ci Serigne Touba wala wàññi na ko gisuma ko xanaa lenn xëy na ñooñu gën a yaatu ay juma ñooñu ëpp ay hôtel waaye ci wàllub islaam ci wàllub nekk taalibe nekk jullit gisuma dara loo xam ne waa Touba ñu koy nawe waa waa gisuma ko fa bon war nañu góor góorgóorlu ñun ci jàpp Serigne Touba ku gis yonent bi sallallahu nu mu tëddee ak jàkkam ja nu mu rafetee kaar ñu ne la kii tëdd fii sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo rëq ci moom muy xaadimu rasool ma nga Sénégal ñun waa senegaal war nañu xam li ñu am thème bi ngeen jël dafa méngoog thème mu jamono sécurité ak stabilité waaye sécurité ak stabilité sëñ Touba moo ko njëkk a samp ci réew mi bi ko tubaab yi sonalee daf leen ne lam yoon ni zajrun man sëriñ Touba kenn du ma menacé moo tax mu ànd ak moom ànd ak tubaab yi musul dellu ginnaaw musuleen woon dara loo xam ne tubaab yi mun nañ ko cee yem ñun kooku lañu ñu àndal muy Serigne Touba sëriñ tubaa amul morom ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba amul morom jërëjëf dañu war a góor góorlu ci xam li ñu am nañu góor góorlu ci liggéeyal Serigne Touba ndax kat Serigne Touba wàcc na ak ñun ic xardu jooxi ilaa xaw saxaadatu sahaadatuna moo ko wax natt yi mu jële woon ci géej gi yëpp ba ko ko yàlla fayee daf ko ne séddaleel ma ko suma waa réew ixaru joxi ilaa xaw mi sahaadatuna jëlal texe bi nga xam ne am naa ko ci liggéeyal bi ma la liggéeyal géej nga jox ko waa Sénégal ilaa xaw mi la wax waa Sénégal la wax bon ñun sécurité suñ ko amee Sénégal nañ ko sant Serigne Touba stabilité suñ ko amee Sénégal nañ ko sant Serigne Touba ku yaakaar ne réew mi lu dul jàmm mun na fi am dangay nax sa bopp sëñ Touba mënul seetaan réew mi di glisser ci ay violence sëñ Touba du seetaan loolu am na ñaan yu mu ñaan fii te tey jii képp koo xam ne yow yaa nekk sëriñ Touba ñaan yooyu nga xam ne sëriñ Touba ñaan na ko moom ngay feddali ci taalibe Serigne Touba yi bon nañu santaat sëriñ tubaa bu baax ki nga xam ne nag moom lañu ñu tuddee journée bi mu sëñ Murtada dañu am relation particulière ndax daf ñu daan fekk plus de vingt ans daf ñu daan fekk à New York ñu ànd ak moom nekk ci liggéey bi daawul woon sonn su ñëwee wàcc ci avion bi ba ñu yóbbu ko dalam ak sëñ bi na mu meloon ak at yi ni mu toll woon dañ ko daan yërëm ba ko ne sëñ bi bul jóge New York toogal taalibe yi ak daayira yi ñëw ziyaar la fii ci New York waaye loolu nangu ko woon dégg day jël avion yi ànd ak ñun di dem état dina def au moins 33 états yoo xam ne aux États-Unis tey jii distance bi ci gën a tuuti mi ngi mel ni dakaar Dakar ko moo tax yàlla may ko li mu li mu am plus de quatre cent soixante seize mille élèves répartis partout dans le Sénégal sëñ Mourtada rekk a am loolu ci institution privée boo xam ne moom moo ko yoreel boppam moo koy dirigeel boppam te ay doomam tey jii ñoom ñoo donnu héritage boobu bon sëñ Mourtada kenn du moom ndax soo xoolee pyramide bi mu def installer des écoles primaires maternelles d'abord primaire dem ci secondaire aujourd'hui UCAB muy université Cheikh Ahmadou Bamba loolu vision moo koy joxe te sëñ pour Murtada tegoon na ay taalibeem ci vision boobu tegoon na ay doomam tamit ci vision boobu te ñoom ñii moom la ñu dox doxal ba léegi fi ñu toll bon ñun waa Sénégal war nañu sant Serigne Touba war nañu xam li ñu am Serigne Touba amul moroom laa wax fii ba makkatal mu karam Serigne Touba amul moroom te loolu mooy dëgg bon seen Cheikh mu président nee na nga ñaanal ko nga dolli koo ñaanal ndax réew mi fii mu toll wax ji bëri na ku nekk ngi jóg wax ku ñu jox mikro lu la neex ngay wax waaye ñi xamoon démb xam Sénégal xam di téye Sénégal mooy yéen ñii yéen a dalal Sénégal bon yaakaar na la ci lii nga xam ne moom ngay tette xale yi di ko wax taalibe yi message bi ngay génne saa yoo waxee message de paix ngay génne mais message luy dalal Sénégal ñun dañu soxla Sénégal dal dañu soxla Sénégal dal ndax liggéey bi ñu war a liggéeyal Serigne Touba egseegul des bon ngeen ñaanal président de la république jàmm rek la bëgg ci réew mi dañuy wax rek waaye président jàmm kese la bugg ci réew mi ak réew mi jëm kanam musu leen dégg fu ñu critiquer euh, Macky Sall ne defu fi dara defu fi dara kenn du ko wax parce que li mu def ñëpp a ngi ci teg bëtam bon li ñu koy ñaanal yal na ko yàlla may kàttan boo xam ne lii nga xam ne tàmbali na ko mu eggali ko ak sagoom te loolu yaakaar nañ leen ci sëñ fàllu yaakaar nañ leen ci sëñ Cheikh yaakaar nañ leen ci seen barke maam ñi ngi sant les autorités yi ñu fi fekk honorable monsieur le maire ak ñi nga àndal ñëpp ak monsieur Diarra monsieur Diarra am nañu fierté ci yéen waaye nag qui se ressemble s'assemble nii nga ànd ak seen Cheikh Oumou c'est pas un hasard nii nga ñëwee ci ci ci Macky Sall aussi c'est pas un hasard qui se ressemble s'assemble montre yëpp ñoo bokk heure bon ñu ngi leen di ñaanal succès man du ma wax monsieur le maire léegi dama leen di wax honorable député maire yàlla na leen ci yàlla teg